ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biti réew da ngeen nga xam ne dafa bari doole dégg ngeen feebar bi ñuy wax nga xam ne dañu naan épidémie de corona. waaw coronavirus ñu ko mën a prononcé boo jàngul tubaab daanaka boo ko jëmee prononcé am problème coronavirus gis ngeen ni ñu koy tawee ni ñu koy tawee ca Chine la xewe ñu koy tawee ñu koy jiñ américain ñu koy lu nekk ñu koy tawee nu ne waaw ñun bu nu amee fulla ñun luy sunu yoon ci lu ñuy tawee ka waaw ñun ma ñëw ma ñëw ñun ñu jàng hamdan limun zili dona waddaay jàng wamun zili shifa i waddawaa i waa dañu koo gëmul wala lan waaw ci bind loolu wax nu ni mun na alayya bi ulumil asfiya wa bi kitabatiya kulla dashfiya waa dañu koo gëmul dañu koo gëmul mani dafa am loo xam ni médecin bi faj lay def waaye wéral yàllaa koy def lam yanhu nii walaysa yanhu jasadi newuñu day kenn kenn de moom de déedéet du kenn kenn du moom waaye moo ne lam yan hu nii walay sa yan hu jasadi daa ay tabibin aw azan aw mufsidi sëñ bi sax excellence maa ngi lu bayit yi kenn wërta jàkkaarloo yow di jéem a wax ay bayit waaye murit mel noonu murit bu dimension ñëwee nanga ko assumer loolu mooy murid te daf ni uri li wacci maliki sabila kulla muridin sabiqin nabila murid rek doyul murid saadix rek doyul waaye muridan saadiqan wa nabilan kooku lay won yoon loolu moo tax kenn wërta taxaw ci seen kanam di wax waaye dañoo bëgg a baaxi ñëpp li nu gëm baaxi ñëpp li nu gëm nu mag ña daan def taal fee ab sébb muy bérax béraxi nga dem gis ku ni ca cëpp di cëpp cëppi yërëm du tàkk du lakk loolu daana am lu tax kenn mënatu ko mbaa kenn defatu ko lu tax kenn mënatu ko mbaa kenn ñemeetu ko loolu la nanu seetaat sunu bopp ngëm moom garab la dafa am lu koy suuxat garab garab la dafa am ndox mu koy suuxat muy màgg man de bu ma xalifa bi ne woon neel jógal ni cëpp Iran mbaa nga ni cëpp Chine mbaa nga ni cëpp itali ma def ko gis nga fi ñu nii nii c'est l'intention qui compte nga baal ma ndax man samay wax dafa xajul fii wallahi Cheikh Ahmadou Bamba xaadima rasul mooy sauvé adduna bi mooy sauveur de l'humanité il est le sauveur adduna bi moo ne jutta bi mufradin lanaa faaxal jumal xuddta lanaa mox jëla jëysin wa amal du kenn te kenn du moom rafahan yi iqdaamu xayri rusuli rafan bihi wafaqtu kulla mursali du kenn kenn du moom dëgg la état yi dina ñuy solidarité mondialisation dina ñuy solidarité Nations Unies noonu les chefs d'état noonu waaye wallahi ku tedd dafa mu sa dajale téere yu bari am ko mu woone ko wutal sa ñetti moroom ngeen ñëw ñu ñëw mu ni dem leen jal ko fee ñu jal téere yépp mu ne lakk leen ko ñu lakk téere yépp buy fanaanee tàkk bu bët set mu woolu leen lépp doon ab dóom jox leen diggal ku nekk jaar ci xeb la ñuy ëmb di ko sànni ngelaw li di ko yóbbu di ko wisaare ba noppee mu woo leen ni leen xam ngeen lu ma ci jubloo ñu ne ko déedéet mbàkke mu leen malaayika yi dañ koy jël aj ko mu tim jaww mu tim àdduna bépp fu ñu toog di ma wax taane ñu soppi ko aw yiw di leen ko xëpp fu ñu toog di ma ŋàññe di ma fa ŋàññi mu soppi ko aw ay ñuy ñëw di leen ko xëpp mi ngi ci kaw mu ngi ci kaw te fu daray ku tedd ki nekk ki ko fi nekkal mooy moo ca ëppale fu daray Serigne Touba nag Serigne Mountakha moo ca ëppale léegi fi ñu toll nii <laughs> nanu ko ñaan moom mi nga xam ne moo ëppale ñëpp parce que moo yor base bi moo yor bi moo yor gi moom la malaayika yu ruus na wan waa adduna bépp yi ni kat kii soowe monde bi mu ngi fii ci Touba waaw li ko li man bee temps la xana kadri dunia wa fii yow mi naja dëgg la taalibe yaa ngi jàng xasaayid yi fu nekk waaye bi nga jëlee xasida bi di ko jàng ban intention nga am ndax da koy jàng ngir Serigne Touba ndax da koy jàng ngir mucc ndax danga koy jàng ngir mokkal ko ndax danga koy jàng ndax li murit war a jàng xasaayit wala lan am na lu tax nga koy jàng mbaa am na yu tax nga koy jàng pluriellement daraam ay waxam benn waxam bu xaj ci dara amul ndax ay waxam waaw sëriñ Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax ndax da nga sëriñ Cheikh maa ngi koy ziar léegi waaw ñu ngi lay ziar bu baax damaa bëgg leeral sunu mbokki taalibe yi rek rawante naa ndaw ñi ndaw ñi dafa am nu ñu leen di jàngale ku tedd ku tedd ki dañ ko war a jàngale waaw man damay wax ni benn bëyitam xajul ci dara waxuma laa nga naan xasida bi ndax isa katabtu tazza arshul baax yi moo tax wa sabbahat malaikati baax yi kon benn xarafam bu nekk alif ga walla waaw ga wala nuun ga wala keef ga bu mu ci mën a doon loo cay jañ mën nga ko caa jañ loo cay xëcc mën nga ko caa xëcc waaye xajul ci dara te caabi bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi sëriñ Basiru dama la doon ubbil rek kaay eggale sa kàddu wasalaamun minallaahi aleykum wa rahmatuhu ngeen jot suñu vidéo nag foo si biir da ngeen a jot moo a xam li nga xam